lépp ñu teg ko ci fen ak cinq li am nag ñun dañ koy dellu ci yàlla te yàlla mooy leeral ay mbiram ba mu leer nañ lépp dama ko jàppee nattu ay yonent sax nattu nañ leen ci lu mel nii moo tax yàlla bi mu naan ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fa la yalamanna allahu alladina sadaqu wa la yalamanna alkaadibin yàlla dafa ne duma leen seetaan rek ngeen ni fëgg dënn naan gëm nañu gëm nañu te duma leen nattu duma ma teste ba xam ndax yéen gëm gëm mi ngi ci yéen noonu ma ko defe woon ñi leen jiitu nga xam dama leen doon nattu ba xam kan mooy wax dëgg ak kan moo du kan mooy wax safaan wa nattu googu nag buñ ko jàpp rek ci wàllu imaan pas-pas ci diine mais yéen ñi ma bokkal projet bi yàlla ak ñuy nattu ba xam ndax li ñuy woote ci projet bi dëgg la ci ñun wala du dëgg fii ñu yàlla jaarale ñetti at yi mu metti loolu ci ñun ak suñu njaboot ngeen may ma ma rendre hommage sama njaboot rawatina samay soxna ndax dund nañ lu méttee méttee métti te kenn musuma cee wax lu dépassé te kenn musul jóg ne maa ngi génn kër gi kenn musul toog ba wax lu jëm ci lii te ñëpp xam ni lii natt gu métti la ma leen di rendre hommage soxna Khady Kébé ak soxna Anna Diamanka ak samay waajur ak samay mbokk mais ak waa parti bi yëpp ak sénégalais yëpp nag ndax sénégalais yëpp koo laaj mu ne lii xam naa ni ay caaxaani neen la waaye natt yooyu la ci yàlla jublu mooy gën a peese suñuy mbagg ba xam ndax li ñu bëgg a yóotu attan nañ ko ñu de dund nañ ci ñetti at yi loo xam ne gaw ma ni am na om politique Sénégal bu ko musa a dund waaye nous sommes toujours debout parce que suñu lépp dañ koo dénk suñu borom dañoo am gëm-gëm te yàlla daf ñoo sant muñ ku yàgg muñ rek dëgg feeñ moo tax may wowaat Sénégalais yépp manipulation bi bëri na nee naa leen lu toll ni joto jote mag loo xam ne lu ñu nangu la sax amul sama diggante ak ndaw si te depuis le début wax naa leen ko waaye manipulation bi bëri na lañ ca bëggoon defe naa tey la furaas ndax xëy nañu seen presse yëpp génne ay titre ku ne di wax lu gën a bon fu ne nga dagg ko waaye peuple bi gëmu ko seen sànni tàccu def nañ ko lañu mënoon yépp def nañ ko te amuñu ci lañu bëgg li ñu mënoon yépp def nañ ko te amuñu liñ ci bëgg manipulation dem na ba nga gis ab journal bu mel ni l'observateur nga xam ne Ousmane Sonko lay bañ a dégg jël li nga xam ne moom la docteur Alfousseyni Guèye wax ñu wëlbati ko totalement ba defe naa sànq rek balaa may commencer émission bi laa gis ni kooko bind na sax communiqué ne liñ ko wax loo yépp mosu koo wax nit loo ko bañ bañ bañ bañ dee ko waxal li mu def Sénégal yi kenn dofu ci ñu mën a déglu la ñu mën a xool lañu te loo xam ne suba ba ngoon jot réseaux sociaux yi nit ñaa ngi doon def reportage en direct nga jàpp ni yow mën nga am xëy rek daa di chargé wax lu ñaaw wax lu bon génne Ousmane sonk ci xolu Sénégalais yi tey la Ousmane sonk gën a nekk ci xolu Sénégalais yi li tax saa su ma génnee ñu gaawantu sànni lacrymogène xam nañ ni fu ma génn Sénégalais yi génn ànd ak man